nee na maa ngi nuyu mboolee mi teew yépp kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant nee te bis bii yàgg nañ koo teewe masha allah nee na ci moom nee ci ñi ko fi jiitu la tàmbulee nee damaa ñëw fekk ko fi nee na ñuy seetlu ne as at mu ne seen pasteef yokku seen jëf yokku seen yéene yokku nee kon mi ngi ñaan mu gën di yokku ko faw na ñëpp di am te mu yàgg fi téwé sëriñ bi nee na mi ngi daayira yi wis yëpp tàmmulee ko ci daayira kuréelu soxna Maam Fatou Mbacké Marème Lo nee na xam na ne jàmbar loo ci yit yi di nuyu mi ngi sant yi mboolem jëwri yi daayira yi soqi ko ci bunti kër Cheikh Moustapha di bunti këram moom mii nee na mboole seen mi ngi leen di nuyu di leen sant mi ngi leen di xamal ne yéen ñëpp gis na seen jëf xam na it seeni yi yéene yal na leen yàlla ak sëriñ bi fay amin sëriñ bi nee ne mu ngi nuyu seex si ak mboolem kilifa yi seq kër gépp nee na mi ngi leen di ñaanal suñu borom saxal leen ci lu baax lii ñu ne saxal leen ci taalibe saxal leen it ci fonk yoon wi maa ngi ma daan dénk ba tey. nee na mi ngi li gën a dénk it lam na daan dénk ba tey. muy muy li nga xam ne nag moo la fi indi. yàlla yàlla gindi ngeen ja nu jaamu ko yàlla nu jaamu nu na sunu borom daf noo bind ngir nu jaamu ko moom sunu borom loolu moo la fi indi te moo fi bàyyi. nee na sunu borom mi bind moom borom kër gii. nee na maa xalaqtul insa wal jinna illa li yaabuduuni kon nag loolu ñëpp ñëpp ko dégg ñëpp ko xam nee na loolu kon yaakaar naa ne ñëpp dégg nañ ko te ñëpp xam nañ loolu xëy na mënul si def lépp waaye nag man ci góorgóorlu lañ ci na xëy na mënul koo defee na mu war a dëgg dëgg waaye nag nañ ciy góorgóorlu bu baax a baax yàlla lépp loo xam ne yàlla digal nañu ci jaamu yàlla nee na lépp loo xam ne suñu boroom digal nañu ko ci jaamu yàlla ci def lan nan ca def lan man lépp nan cee def sunu kem talaay kàttan ndax suñ boroom sax digalul kenn lu mënut waaye nee na lan ci mënut it nan koy jéem ba suñ kàttan yem nee na lool yi buñ ko defee danan daje ak ngërëmam te li nu Sëriñ Tuubaa digal it mooy li nu yàlla digal. buñ ci nekkee daanu am ngërëmal nee na kon buñ ci nekkee danañ am ngërëmal yàlla. na nuy dimbalante. tey bañ a tooñ. tey a tooñ. sax ci ak njub. nee na lépp lu waay tane sa moroom na nga ko cay dimbale. nee na kenn ku nekk ci seen biir na nañuy yërëmante ci seen biir kenn ku nekk di jëflante ak moroomam ci yërmande. nee na mi ngi digal ñépp nañuy def lu baax te di ko yéene. nee na kenn ku nekk na yéene moroomam lu baax. te fam ko mën a féete ci lu baax na ko fa féete. nee na loolu mooy lislaam kon nan ci góor góorgóorlu mooy kàddoom. nee na gannaaw loolu. mi ngi fàttali nag màggal gi ba tey. nee na mi ngi soññee màggal gi nu jublu. di fukki fan ak juróom-ñeent di ñaar fi ku guddi ci tam xarit wi nee na màggal la goo xam ne nag Cheikh Moustapha moo ko woote woon bëggoon ñu ci fàttaliku sëriñ bi sëriñ bi nag ñëpp xam nañ ne alxuraanu karim rek la bëggoon kon nag nan ko ci liggéeyal ci alxuraanu karim lool lañ ko mënal lu waay man ci jàng alxuraanu karim na ko jàng ngir guddi googu yi. lu waay man ci jàng xasida yam loolu liggéey la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci tagg suñu borom na ko jàng. lu waay man ci salaatu ala nabi ma mu soppoon na ca nekk. lu waay man ci istixfaar seetal boppam na ca ne. nee na it ñu yaatal gan ñi. dalal leen. bañ leen a xatal. ndax màggal gi yàggul daanaka gën jaa bari ñaari fan la kon nag yomb naa defar yomb naa muñ nee na lépp lu waay man ci bis boobu yi nee na digle na nanga ko ci def xam ne sëñ Tuubaa sunu yaakaar ya lañ koy defal te yàlla am na pay te dana leen fay ku liggéey sëñ Tuubaa sunu borom fay la sëriñ bi nee na santal jërë ngeen jëf yàlla na ko yàgg a teewe ànd ak man ak wér ak tal ak fekk ñoo ko ñoo koy jibal sëriñ bi boole ko seen i xol ak pas-pas ak seen i pëstéef di yeesal suñu ànd ak Cheikh Moussa ca kàddoom ya nee na woon allahuma ishhad lii bi anni raditu bika rabban وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبوالدي nag la wax loolu nag moo ko sëñ وبوالدي am na xadim waliyan وسيلته sëñ bi kon ak tey ahmadu Mustafa ko muy alquran karim sëñ bi ñaari la ko am lii bi joxe moom rek muy biir réew bitim réew kuy ci ñi jox na ko nu boole ko jox leen ay darajaat yoo xam ne euh, mooy ay diplôme d'honneur soxna maam Fatim Mariama Lo nag mi ngi gën a santaat di santluwaat ñi mu àndal mu ñu takk lool topp ci gannaawam mi ngi yóbbante ay cant ci ñoom dal di ko teg ci loxol soxna euh, ami silla Sohaybu ak ñi ak mboolem ñi ci aju ñëpp ak mboolem ñi aju ci gannaaw soxna yi nga xam ne mooy magam yu tedd yi di soxna Maymunatu ak soxna muslimatu macha allah ak soxna aminatu asalaamaaleykum wa rahmatullah